Firaaw yi déjà avant ñu si gën a xuus euh, seen ñàkk nekk foofu noonu c'est la cause de l'homme wala c'est la nature qui a fait son travail. bon ñaar yëpp ah. Mhm. ñaar yëpp parce que am na ci partie yoo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko déclassifié. Mhm. donc euh, ñu daaneel garab yi am na ci yoo xam ne aussi nature bi la. Mhm. mais nit mën nañ ne lom moom nit am na ci part de responsabilité bu rëy quoi ñàkk ñàkk nekk filaawa yu noonu tax ba tey jii nii euh, littoral bi agressé wu comme ñu koy waxee souvent mm. euh, ndox mi nar a avancé dunes yi war a disparaître bu fekkee ne jël leen ci ay pexe loolu sax moo waral tey jii ni mm. conseil bi en partenariat ak ay euh, partenaires et de la répétition ngeen bëgg ci indi ay ay ay saafara absolument mm-hmm. donc dafa nekk menace te loolu comme ni mu amee ci côte yu bari ah donc moo tax euh, ñu bëgg ci indi ay saafara parce que aujourd'hui dañuy wax sax ne nature bi moo nekk en danger te loolu mm. au plan mondial ndax désertification dafa am solo ci gox yu bari ci àdduna bi léegi nag bu ñu seetaane bu ñu seetaanee te juguñu mm-hmm. mën na indi géej yi parce que te commencé na feeñ ci yenn gox yi boo demee Saint-Louis boo demee Rufisque mm-hmm. donc commencé na fa feeñ boo demee mbuur donc géej gi du toog donc bu amul lu ko téye donc dafay dafay dafay avancer. ah mais qu'est-ce que vous prévoyez de de faire parce que aussi li may wax ni c'est une force dévastatrice euh, la mer qui avance. Euh, lu mu fa fekk dana ko fa jëlee est-ce que aussi vous avez assez de moyens pour euh, arrêter stopper. li nga yi nekk ci littoral bi. Mhm. yooyu la war a fixer sable bi parce que sable mouvant la. ok léegi filao yi ñu fay def mooy fixer suuf si. ah justement qu'est-ce que vous allez faire pour fixer ah, ces dunes. justement ci wàllu boob dañ ci am projet boo xam ne. Mhm. dañuy reboiser te loolu. Ah. suñu dañ ci am ak ay dañ ci am ay ay ay bras technique. Mhm. mooy waa eaux et forêt ñoom ñooy gérer wàll boobu donc dañuy reboiser sur bande boobu. ok gàddaay à Malika sur une distance de 4 kilomètres lañuy lañuy lañuy lañuy la ñuy reboiser ay filao. Mhm. parce que filao yooyu ñoom ñooy fixer suuf si. d'accord léegi euh, am ngeen ay bras techniques yu leen ci jàppale mais ça demande xëy na des des moyens est-ce que la commune a dispose euh, le département bu mu mënee wax noonu. non loolu c'est un projet boo xam ni euh, coopération espagnole moo ko financé. ah d'accord. mooy agence de espagnole de la coopération internationale pour le développement. Mm-hmm. ñoom ñoo financé projet bi. à hauteur de trois cent cinquante mille euros. Mm-hmm. donc ñu war ci liggéey. pour reboiser sur une distance de 4 kilomètres donc yooyu yëpp c'est le projet qui prend en charge reboisement boobu mhm. ak activités yi ñu ciy def lépp mais projet la boo xam ni euh, dañuy reboiser filaaw yi comme su ma ko waxee léegi mais dafa am yeneen dimension parce que dañ ciy liggéey ak ay association de jeunes ak ay mhm. GIE de femmes les groupements féminins ci wàllu formation mhm. ci wàllu pépinière